Bienvenue sur Salam Vision. Dara dara dara uma dara yeah dara man rasuma dara dara dara fii ba le 31 décembre ànd leen ak king cosmétique ci gaam yi nga xamante ni dafa nekk en promo gaam weextal bi ñu doon jaayee 60 000 léegi ñu ngi koy jaayee 45 000 bu dee gaam bu ndaw bi doon jar 35 ñu ngi koy jaayee 25 000 diw yi nga xamante ni 25 000 la doon jar nag léegi 15 la koy jaay waaw xoolal ma diw yi doon jar 20 000 léegi king cosmétique 10 000 francs la koy jaayee bépp zel bu mu doon jaayee 25 000 mu ngi koy jaayee léegi 15 000 francs bu dee gommage yi nga xamante nag 10 la ko doon jaayee léegi 5

salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci euh, salam vision point net euh, di sant borom bi bu baax a baax ci li ñu dooleel kàttanal ñu may ñu ba ñu teewaat fii euh, tey nag dañu seet si ku nga xamante ni nii ndaanaan la nee naa leen ci wàllu produit yi moom moo téye réew mi ndax bu nekk nee King Cosmétique yaakaar naa ni jaratul ñuy wax dara King Cosmétique nag mi ngi nekk pikin marché zinc centre commercial Khadija. cantine mi ngi nekk deuxième étage cantine numéro 71 euh, muy wuyoo Dan Mbacke Dan maa ngi lay ziare. delloo laa lay ziar bi. naka yëngu yi. di jëw sooy sant alhamdulilah. tey ñu doxantu ñëw fii nga xamante ni nii moo di King Cosmétique avant tout lan moo tax King Cosmétique. waa euh, DJ maa ngi lay euh, nuyu di la dalal di dalal équipe bi nga xamante ni ñoo nekk ci sa ginnaaw waa. site waa borom site bi tamit ñu ngi koy nuyu du ko siyaar waa Salam Vision ñu ngi leen nuyu di leen siyaar ñu nuyu Sénégal yëpp nag ñu nuyu àdduna partout travers dans le monde entier voilà bon di la dalal ak jàmm voilà. Hmm. waaw aja ginnaaw boo nuyoo euh, ñi nga xamante ni donc ñooñu seetaan mbokku internet yi ñu nuyu ñëpp ñoom itam euh, comme ni ma waxee sànq euh, naa leen fi mu toll nii réew mi yaa ko téye ci wàllu produit tey lan moo tax ñu ni King Cosmétique. waaw King Cosmétique moom euh, li may wax saasu su ne rek mooy euh, benn jeune la bu jóg bon yàlla sunu borom euh, def xiir ko mu nekk ci millier bi nga xamante ni mooy milieu bocc. waaw mais loolu damay sawar ci wax nag parce que saa su ne may wax Sénégal yi yéen kenn dosu ma ci daal. benn jeune la boo xamante ni Sénégal bii la juddoo fi la yoroo fi la màggee suñu borom nag def mu teel a génn def ci yëngu yu bu tey. ñëpp ñu ñëwaat bi ñu ñëwaatee moom si yàlla suñu borom def ñu dugg ci wàllu góor ci nekk ay commerçant. parce que boo xoolee cosmétique la day dem ci commerçant nekk ay commerçant nekkoon ay marchand sax lay wax yàlla def xam nga. ñoom tamit nekk rek donc ñoom ci moyens yi ñoom ñoom tamit pour jàppee dara baax parce que dërëm dërëm moo ko dajale bu yàggee bu bokk dërëm voilà ci loolu nag kii tàmbaliwaat kii Kossy nag Mati nag ñu ko créé téeméer bi ñu ko créé studio Wally Seck la ko Sénégal rek fa ko indi avant non stress bon ak gars yi ak artistes yi xam nga. ñu liggéey ko immigration doy waar xam nga Sénégal yi dañ koy indi kii cosmétique am ko seen xol. Sénégal yi ñoo ko kii cosmétique parce que boo xoolee mën naa ne Sénégal yi ñoo ko jël daal def seen moom. kii cosmétique pour Sénégal yi. ñoo ko indi pour man personnellement man moo xamante ne pour Sénégal yi. kii cosmétique pour Sénégal yi la kon su ma déggee sa biir wax am na jaar-jaar boo xam ne jaar na ko avant ngay xaar parce que ci biir wax dëgg naa moment bi am na ay produits ci produits nga ne ko n'est-ce pas. waaw man nag mosuma jéem a dem cosmétique parce que boo xoolee li ñu doon jaay ba may ba may ambulant li ma doon jaay maa koy jaay ba tey parce que li may ambulant mouchoir AGT laa doon jaay ak ay pantalons ak ay brosse jamono jooju nag suñu mosaan jënd douze mouchoir jigéen ñi soixante quinze yi jëndee ko neuf cent. bu ko jaayee trois cent la ci am. mais trois cent yooyu bu ko Moussa jaay ba mu jeex bénéfice boobu nag boo xam ne dañoo ci ñun. Mm-hmm. soo Moussa dafay am bénéfice trois cent day mel ni. dama mel ni comme trois millions. voilà mm-hmm. mu rëy ci man xam nga. yàlla suñu doom borom bi def euh, mu dëkkoon nag Géejawaay doon jugee Géejawaay bi xëy. di dem di Dakar di tàkkante ji. bon di loolu euh, di defar ci kaw kër gi di dem nañ ko. lim bi jaar ci coono jaar nañu ko. waaye tey coono boobu dafa wóor ko doon bànneex ndax mun naa ne commerçant yu bari yu nekk Sénégal. fi ñu nekk bokkuma ak ñoom jaar jaar. parce que ñenn ñi seen place su mag relève dañ ko def. ñenn ñi seen place su nijaay dañ def relève. ñenn ñi seen place su papa dañ def man tey cosmétique man maa nekk nga xamante ni sama famille maa ci njëkk a nekk commerçant. sama famille ma bokk. maa ci njëkk a nekk commerçant ñenn ñi kenn du commerçant. kon ça veut dire que kenn kenn war ma yoon. kenn war ma dina di defee kii. te tey par la grâce de Dieu xam nga yàlla ñu ngi sutura ñu ngi dimbali. voilà pour wax ci parcours bi cosmétique mais bu ma la waxee fi lay faral. fi lay faral loo xam naa ne bu ñu ko doon wax fi lay faral yoo xam yoo xam naa loo doonul daal dem doo doon sëriñ donc su ma déggee sëriñ bi wax mooy tànn yu nga tàlleere yu topp lu bari bari est-ce que nekkul loolu moo tax tey ñu gën a xam gars yi produit yi. waaw xam nga olof yi dañuy waxoon ñoom solo dañ ne lu waay doon taal yi dañuy service te ku bëgg la tur ma xam ku ne da ngay nangoo doon taal taal ça veut dire euh, nit ki bu amee jaar-jaar riche da nga mën ki nga xamante ni jaar-jaaram bu riche parce que palmarès ñu man palmarès nit ki day feeñ ci dundin nit ki quoi voilà jaar-jaar boobu wax dëgg yàlla tey def na ci man lu bare ba def na ci man marketing dafa ci am communication jàngal na ma lu ba tax na taayalu tax na li daal yenn jaaykat yi sama mbokku jaaykat yi leen daal dalu man damay jàng ba tey damay gëstu ba tey parce que créé ci tax la ma yor li ma yor nawu ma ko dama koo sax xeeb chaque jour maa ngi def ci leneen moo ci dolli moo ci fekk voilà loolu li nga xam ne faaw fekk parce que façon bi ñuy liggéey moom bokkul ak ñeneen ñi ñuy liggéey bokk ci. loolu moo tax ma wax la loolu parce que tey ñun euh, ñu ngi biir euh, King Cosmétique après léegi fi ñu fi ñëwee am na ku ñu fi fekk nga koy jaay euh, produit muy fi nga toog yow yaa def mélange yi te man loolu yombul ma koy gis ci ñi nga xamante ni mooy sa mbokku jaaykat da ngay ñëw rek ñu ngi nga am jox la nga dem da nga dem ba xam secret yi nga xamante ni moom moo nekk ci biir affaire yi wala loo xamante ni yaa ngi gëstu ko sa bopp ba xam ne produit bii nii da nga koy mélanger ak bii dugal ko ak bii ko jox la tey yi nga xam moom la soxla. ok di ñëw waaw mooy li may faral di wax rek mooy que marketing bi gën a wóor mooy xam li nga def. parce que sànq boo gisee kii ñoom ñu mélangé ko yaramam dañu xool bopp parce que ñun tamit kii cosmétique bu ko xool xam ni am na équipe bu nekk ci ñun bu bokkut ak li Sénégalais yi gis. parce que derrière euh, kii cosmétique y a des médecins y a des grands médecins ah. derrière aussi kii cosmétique am na ay dermatologues yu mag a mag a mag ñoo xam ne suñu ginnaaw. ak tamit ay partenaires yu am doole. voilà ñoo xam ne dañoo liggéey ñoom ci wàllu partenariat ci produit bu baax bu ñu am di ci waxtaan ak ñun ñu xool naka la ñuy def ba askan bi du ko mën a am. voilà loolu tamit day fekk ci liggéey moo tax li bokk ko jaaykat yi nga xam ne boo ñëwee dañuy à peu près di la proposé non dañuy xool seeram dafa la consultation d'abord bu defee consultation yi xam seeram euh, lii la soxla seeram xees na mais maase wu mais lu ne seeram la lay jaay waaw loolu mooy différence bi moo tax xale yu jigéen ñi nag euh, jug dem king cosmétique pour defar seen yaram moo gën a yomb ci ñoom jug dem ci keneen di ko bàyyi ak seen yaram parce que yaram nag dafa doy waar yaram koo koy jox dafa war a nekk koo xam daf ko maîtriser dafa war koo xam daf koo xam dafa war a nekk koo xamante ni produit yu neex lay jaay. Mhm. boo xoolee bitig bi dañuy interdit di fi jaay man soo fi nekkal sama nekk écré gënal fu mhm. ci suñu bitig yëpp duñ jaay écré gënal parce que loolu moom leen signé ak Sénégal yi mhm. duñ jaay chimique duñ jaay écré gënal duñ jaay dara loo xam ne day yàq yaram jàmm duñ lépp lu ñuy jaay lu naturel lay doon. lépp lu ñuy jaay lu naturel lay doon. lépp loo xam ne kii cosmétique bu ñu koy jaay mën na la ko garanti mën na la bindal facture garanti parce que li ñuy jaay nag da koo xam. Euh, Yorof gi wax naan Tunga ñu teew ñu Dakar ba ñu fekkee euh, parce que ci euh, télé mën naa ko wax ci li ñu nekk di wax dama fekk léegi léegi léegi nga jaay nit ba pare ni ko jëlal nga dem. une semaine. boo amee résultat nga doon a fay te loolu amul ñu bëri ko ñun lu tax nga am sañ-sañ boobu noonu ak man itam dafa nga def ak moom loolu. waaw xam nga équipe bi gagné kenn du ko kenn du ko changé. man loolu laa wax saa su ne. c'est-à-dire loolu la yow répétition nga fekkee mais daf nañ ko defee du ko def Sénégal yëpp ba nga xam ne ni King Cosmétique suñu premier lancement dañ demoon ku am cere ñu war ñu traité mën nga ko fay. waaw ñun noonu lañ débuté. waaw waaw ñu am cere ñu bëree bëri sax. ñun ñoo ñëw ñu traité ba ñu fay ñu suñu xaalis moo tax ñu arrêté loolu gratuit bi ñu arrêté bu njëkkoon da ngay ñëw jox ko sa photocopie daal ñu traité la ba sa cere gi dañ ko doon ma fay. Hmm. léegi nag confiance boobu ak produit yooyu ñu doon ba wóolu ko di ko jox ay nit di ci traité yi ñu am cere. mais confiance boobu moo fi nekk ba tey moo tax ko hmm. hmm. benn produit ni ma ko ko. ma ko jëlal ma jox la ko soixante mille lay def nga may la une semaine nga utilisé ko boo ma la ci wax. nga fay ma soo parce que yàgg nañu ko fay client client bi day war a fay ñu suñu xaalis yëkkati teraanga may ñu ko. parce que ñoom dañuy apprécier dañuy solliciter geste quoi parce que da nga naan yow. confiance bi nga am ci say bagages dafa doy wax parce que boo gisul résultat dans une semaine boo mën dans un mois dans une semaine boo am résultat nga jël ma may la produit. dans une semaine nag boo amee résultat nga fay ma sama xaalis. donc mooy li may wax dinaa la loolu di ñëpp ko ñemee kon su ma déggee sa wax mooy ñeme nga fa nga jëm te aussi xam nga produit yi nga xamante ni moom nga yor donc ñu fàttali leen ba tey di jéem di ànd ak ñun ci Salam Vision tey nag ñu daal boo xamante ni ku ku ku màgg la ci li mu nekk muy Mouhamadou Bou li nga xam ne mooy King Cosmétique. dan xam naa ne tey bu ñu toppee ci euh, fi King Kosde Kamare fi mu jaar ak fi yëpp toll gëm naa ne fi dañuy fanaan mais dafa am loo xam ni tey euh, jigéen ñi dañ la ko jox muy euh, parce que ku ne xam ni ku wax produit cosmétique wax beauté parce que xale dañuy bëgg jigéen ñi saa su ne comme ni koy waxee donc te gis nañu fi mu toll nii xale jigéen ñi jox nañu la bopp secret bi lan la. waaw ah, secret bi nag nangoo liggéey la am wax dëgg la wax dëgg mooy passé parce lépp loo def da nga ko def ci dëgg la loo mën di def ci àdduna ko def ci dëgg xam nga xale yi jigéen tamit dañoo yor seen xaalis xam fépp ni nga xamee kenn cosmétique noonu la nga xamee keneen ak keneen ak keneen mais bu ñuy bàyyi bitig yu bare bari di ñëw di la fekk deuxième étage nga leen di jaay parce que li ñu ànd ak li mu ànd ak ñoom dëkk boo ko doon daal ñoom dañ may wóor ñëw ci man mais man it bu ñu demee li fi nekk naa leen wax wax li ñuy waxante dëgg la moom mooy secret ak nangu liggéey ak équipe dynamique. parce que yow xam nga daal xam nga ne kéem a entreprise la. entreprise la oui. xam nga c'est mm-hmm. a ngi fi. Mm-hmm. mais bu boobaa bu fecc li neexee rek. yaa yaa yàq dafa liggéey bu jàppandal dañuy ñuy jàpp liggéey jëmale ko ci Sénégal yi. Mm-hmm. ak ci àdduna bépp ci biir réew ak biti réew. équipe bi moo ko may équipe bu kéem cosmétique xale yi fi nekk ñoo yaru ñoo nangoo liggéey ñoom xam-xam. loolu lépp ñu ci ñoom. ñu may ñu may liggéey suñu am laay am nañ xam-xam. yeewu xam na li man su ma demee sax ba nekkatuma fii kii ko ko defal. parce que li li doxal entreprise bi ñu ci ñoom. muy xam ne xam-xam xam moo ñu ci tuddee. yeewu nañ. ba am na capacité. macha allah macha allah kon ñëf euh, yi ñu daan rek am na yeneen ne nekk ci ci ginnaawam ñoo xamante ne nii euh, am nañu jom am nañu ful mën nañu accueillir aussi itam gan parce que ñëw naa fi benn ñaar fekk fi ay clients gis naa li ne gars donc dañuy euh, bàyyi tuuti produit yi euh, parce que ci i aussi tam nekkul ci ay produit rek gis nañu savon bu nga xamante ni su dee ko def euh, ay suñu visage pose ongle pose cils tatouage donc man daal su ma déggee daf nañu ci cosmétique lépp luy yokku taaru lépp ci cosmétique la. waaw ok loolu ba tey damay faral di Sénégal yi naan képp koo xam da ngay da ngay yëngu ci wàllu produit bul bàyyi dara parce que yaram da yaram lañ wax parce que. poste ci yaram bi nit da koy soxla pose ombre nag da koy soxla ci wàllu booti la bay pédicure man kii nit da koy soxla ci wàllu booti ñun dañoo xool lépp loo xam ne booti la rek ñu dajale lépp bàyyi ñu dara lu nit di dagg bee gën ba étage yooyu dafa fuuti boo ñëwee kii pose ko dafa am nañ salon boo xamante ni boo ñëwee dañuy jaay sëb am nañ boutique bi jaay sëb dañ lay jaay sëb jaay la lëngal boo bëgg garanti la ko ñawal la ko boo bëggee tent ñu tental la ko boo bëggee support ñu supportal boo bëggee boo bëggee euh, loo bëgg a def sëbëb ñu defal ko boo bëggee jënd la sëbëb ñawal la ko sur place. même pas trente minutes nga yor sa nga dem parce que liggéey jëf day mat. Mhm. man li ma mën koo sabar mooy man may jaay sëbëb jox jaay la ñaari takk ak policier nga dem. li mu soloo bu la ko ñëwaat ngay dem di tekk sa sa bët di ci sàcc. di sàcc waaye. parce que ñun liggéey bi ñu liggéey domaine bi ñu nekk dañ koy liggéey ci domaine professionnel bi. dañ dañ koy liggéey ci professionnel. dimension bi tamit dañ koy liggéey. ndax nit boo ko jaayee sa ay takk da koy ñëw rek. waaw benn mu koy dem di koy ñëw rek ci am ay gàllankoor. yow fi nga nekk am na sécurité am na kéem daal di sécurité xale yi fi nekk gis nañu. Mm-hmm. mais nga ne ko nit ñi ma ñëwal la. te ñi fi nekk ñoo daan ka ñëw ñi nga xam ne ñëwuñu fi sama waa Soron ñoo dàkk ñëw ci salon yi nekk Sénégal yi. benn yoon après ñoo dàkk liggéey ci salon yi nekk Sénégal yi. parce que lu tax ma ñan kooku noonu seen nga koy gis. mais boo gisee seen liggéey gis yeneen liggéey da nga xam daal li ma la ko waxee mooy équipe la boo xam ne képp koo xam ne taar sa taar nga bëgg a boo jugee sa kër ñëw King Cosmétique boo ñëwee doo jaar fenn doo jaar fenn sa kër ngay jógee tuuti wax. aji kon xale jigéen yi nga xam ne ñu ngi doon benn yi dañuy jaar King Cosmétique parce que nit ñi fi King Cosmétique dafa nekk euh, bagage boo xamante ni dafa complet comme comme ni ma waxee lépp luy ci biir ndax dañu ñëw ci euh, produit yi nga xamante ni décembre dafa nekk am promo parce que moo xam ne ñu ngi ci décembre loolu tàmm nañ ko ci King Cosmétique euh, bu ñu duggee décembre lépp lu nga xamante ni produit yi dafa am King Cosmétique dafa koy wàcc moo tax yow yàlla dogal na ni lii kii cosmétique taxee ba tey yaay suñu partenaire dama wax su ma juumul kii yaa kii cosmétique bi nga nañ sa voix ma présenté sax parce que ñu bëri bëri dañ naa ma mais kii kii présenté seen produit ma présenté la sama client yi yëpp ma wax leen ne kii li ma intéressé tey ànd ci internet moom ak bii salaam euh, moom mooy ki nga xam ne moo koy wax sama voix public public publicité lépp lu kii cosmétique mos a publicité lépp koo xamante ni rek euh, yàgg naa dégg voix King Cosmétique. di jéem uus mi koy def xam naa moom lañ ko gis tey moom laay defal émission ma ci sant yàlla ndax li day wane man King Cosmétique que ba ma tàmbalee ba tey ñi nga xamante ñoom laa door a ñoom la liggéeyandoo début ba fin ma changé ma fréquentation changé wu ma lieu changé ma site internet damaa fidèle ci def. changé wu numéro. changé wu ma numéro. fa ma nekkoon naa nekk ba tey. waaw kon boo waxaat leen ne leen carrément kii nag moom la ñi nga xamante ni sama voix yi moo moo def voie bi. Koor Dieng moo def voie bi. 31 décembre moo def voie bi. képp ku mës a dégg gis ñu partagé la vidéo kii ñu ko suñu ji di la wax promotion. kii mooy ki nga xamante ni moom moo def voie bi am. ñu ngi ciy sant di la gërëm parce que liggéey bi set na sell la. te day gaaw du am coono. da ngay woo rek da nga da nga dem ba da nga bokk ci équipe bi. xam nga équipe bi xam nga ni muy doxee. mën la wooyee dara ah bagage yi ñëw nañu programme bi ñu la jox. nga doxal mais nag. ren promotion bu spécial dafa am. bu doy waar moom laa lay wax nii moo tax ba bëgg ñu waxtaane ko parce que euh, bërki démb dama xool sa statut euh, li ñuy wax naan maa ngi nii kuy nëbbatu du ko wax ma gis benn maire ndeysaan kanam gi tubaarkàlla xam ne mu meloon mel ni sama kanam mu maam jëm mais produit yi mu ko jiwoo maire bi daa belli ba daa foto yónnee la te du moom gamu donc loolu day confirmer liggéey bu set bi nga xam moom ngay liggéey ak nit ñi ba am ci yow confiance yëpp moom moo def ak moom moo taxawu ñu waxtaan ak loolu. c'est que nag man euh, liggéey bu toog sax foog nga dugg ko faram foog nga dugg ko ndax euh, àdduna day dox jamono day soxleeku. ñu ngi ci vingt-et-unième siècle yàlla doo maye day dénkaane dégg. Mhm. Euh, tey jii fi ñu toll nii nii nii euh, kon ma doon taalibe ak yeneen yi ma ci daara mu mën a wax yenn yi. mais ma ko sañoon mën a mun ko wax ci yaramu doomu aadama. ku que loolu Sénégalais yi ñoo ñu ci ñu ko ci dafa am ñu fi ñëw ñoo xamante ne dañu amoon problème mu cere dem nañ ci dermatologue bu nekk ci Sénégal dem nañ fa hôpital bu nekk dem nañ fa jaay ko ci jiw bu ne wër nañ la bi ñu ñëwee ba agsi fii King Cosmétique dañ koo traité ci INSEP. macha allah loolu nag ku ku ko kii bu ñu nekkoon yeneen façon nit. bu fekkoon tey jii dañoo nekk nit ñi nga xam ne yàlla mën nañu wax wala ñu ngi doon ay nit yoo xam dañuy bàq loolu day doy na bàq ren ko déwén. Mm-hmm. ndax cere gravité bi ci nekk ñëpp ko xam. cere mooy der bu dee. mooy ku dara doon dund poor yëpp ubbeeku. poor yi tëju der bi dee dara dootul dugg ci der bi. partie bu am cere mooy sax foofu moom c'est fini foofu dee na. ki ko ba mel ne meloon. moo tax ma ne ma bu ma nekkoon kuy naan wala ma nekk koo xamante ni tey par exemple damaa mel ni ñenn ñi. yor làmb bu rëy kon mun naa ne Sénégal xam nañ ma mais dinañ ma gën a xam. parce que nag mën naa loo xam du ma ne man kese maa ko mën. mais téeméer yoo jël benn ko ci man benn. naa loo xam Sénégal mun naa koo jiitaloo que ñi ma koy faj ñoo ma ko wax ñoo ne ma dem nañ fu ne suñu xaalis jeex na cere yooyu yaa na ko dindil yaa ma fajal cere faj naa fi cere ba tay faj naa fi chronique ba tay faj naa fi rew ba tay faj naa ko fi ba tay fii ci place bi ñi ma koy fajal dañ may defal ay ay ay ay vidéo témoin mhm. dama dem ba ne vidéo yi dootuñu ma dugal sama page parce que vidéo yi dafa bari mhm. euh, dëgguma la mais la preuve euh, sànq dama toog fii nii man ak euh, suñu caméraman bi Saliou ma gis ay commandes yoo xamante ni fii la war a jógee dem ba Europe xam nga tey am na ci euh, soxna yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu ngi seetaan am nañ complexe boo xamante ni tey dañuy woo ay nit leen di yónnee ay produits yu jógee Europe mais man bii moo may fekkee ngay jël ay produits di ko jëlee fii di ko yónnee ay nit yu muy dem ba Europe kon li ngay wax ni bu fekkoon te ne amul euh, peut-être loolu am pour wan la ni la yow am na lu la yàlla may ci wàllu yaram loolu bu la neexee dindaroo ko parce que xam-xam la lu la yàlla may yàlla yàlla dafay am loo xam daf koy def ci doomu aadama tey am na ay tradipraticiens yoo xam ne dañuy toog ni nangam man doomu maa ko mën a faj te buñ demee ci médecin médecin bi leen yow tey am nga sañ sañu toog ci télé bi jàkkaarloo ñëpp ñu leen di yaram am na lu ma ci yàlla may te loolu ma dara koy nëbb parce que damaa fekkee. cause xam na Sénégal la ñu nekk. Hmm. Sénégal la ñu nekk te Sénégal moo produit preuve. Hmm. tey yaakaar naa bi ngeen ñëw bu ñu tuddee émission bi ñu tuddee Zero Dame. damaa fekk may jël bagage yi ma ko jël. mu ne lu ko neex nag parce que dama cee jàng lu bare bare bare fi ma toog. bagage yi ma ko defee yëpp. bitim réew la jëm. Mm. ñaari valise yi ba mu des dafa marchandise. ñaari valise bitim réew la jëm. kees euh, bu nekk ci biir sirif yi. bi nekk ci buntu place bi. Mm. bitim réew la jëm ñenn ñi États-Unis ñenn ñi amaat. Mm. ñi nga xamante ni ñoom laay jaay produit yi. dañ koy jaay waat foofu Amérique. te ñi ma ko jaay dama amoon cere ma traité ba seen cere seen yaram bi dama mel ña fa nekk képp ku dëkk ñoom ñoo maanaam fi ñuy liggéey. Mm-hmm. ñoom ñoo xam ne yéen seen yaram lu mu mel dafa changé parce que meloon wóor nañ nan ngeen mel. Mm-hmm. ni ngeen mel nii du bees la. léegi nag femmes yi comme ça organisé wu mm-hmm. parce que def gis la di wóor nañ ko gis nañ ñoom ñoo jënd lépp di ko jaaywaat. te balaa caméra bee fay sax. dañuy tijji valise yi. dañuy ñu xam ne kii cosmétique dépassé na. dañuy <laughs> jaay ay mbuus mbuus yi moom. dépassé ko. Mm-hmm. mais bu ñu xëyee ay carton la ñuy jaay ak ay valise. parce que surtout nag foofu dama koy teg baaraam. Mm-hmm. Mm-hmm. diaspora moom dañ ñoo gëm mais gëm bi yëpp ci ñun la jógee parce que. doon faa def preuve danoo toj foofu ñu danoo toj Europe. macha allah toj na Europe. Mm-hmm. toj Amérique. Mm-hmm. ndax Amérique li fa nekkoon ñëpp dañ la daan jaay diw. Mm-hmm. diw bi yàq seen yaram ko jaay bloqué leen. léegi king cosmétique saa yoo woote da nga jot secrétaire bi. baa nga def assistant bi baa nga def moom la ko mën a. macha allah surtout dañ ko tijji. macha allah léegi xam a jaay nga am résultat. am satisfaction. kon saa yoo ko woowee mu décroché. da nga koy jox bopp. ci man. am nga ko la daan jaay. pour nga jot ko di nga toog benn ko jot. te produit yi mu yow baaxul dana leen mujjee bloqué parce que bëggul sax su ma koy wanaan ko li mu jaay baaxul baaxul. Hmm. léegi nag looloo tax bërëb bi nag moom jaaykat yi xëccoo ci góob la. que bërëb bi ñu fa def moo tax. Hmm. bërëb moom ko war a téye. mi ngi seen loxo fi moom nee naa jaaykat yi. nañ jéem a xëccoo bi Sénégal. waaw mais bërëb moom yàlla dama nañ faatu faatu yi fa nekk yëpp ak moodu moodu yi fa nekk yëpp ñun ci cosmétique ñu leen jox bopp seen alal ñu leen koy jox ñu leen wóor ñu moo leen di jaay. li nga gis nii yëpp yëpp yëpp. Mm-hmm. valise yëpp dañ demul ci Sénégal. valise yi yëpp yëpp yëpp yëpp. ay commandes ay commandes ñoo fi digg. léegi bala ñuy dem dañ koy wane parce que sénégalais moo bëgg preuve. il faut ñu wane leen preuve wane leen ni carrément. Europe mm-hmm. nag jël na gën na doogaat bi. sama caméraman da koy jël léegi léegi léegi mais ma wax la benn affaire xam nga yaa ngi wax gars yi di Europe mais Sénégal sax euh, yaa ngi téye parce que euh, dan euh, dafa am loo xam doomu aadama du ko bëgg. moo bëgg loo xam ne bëgg na ko ko may maa la koy wax sànq man nee naa la damay topp sa ay statut te li may gis nekkul loo xam ne dañuy xoolee mais moom dañuy mos nit ñi da lay wan ni mu meloon avant ak ni mu man ni mu mel après loolu muy preuve c'est-à-dire yow man yàgg naa la fréquenté mais comme tey dañu nekk ci émission yow bëgg a xam daal dama bëgg lépp li génn ci yow mais produit da lay jaral nga dugg dëkk ak dëkk jëm avion dem uti loolu noonu indi ko Sénégal yi. jugee nga voyage bu benn ñaar fekk ma rajo ñu def ay émission ñu def ay ay ay ay ay voix off pour ñu dugal ko. donc kon euh, ñi nga xamante ni ñoom seetaan pour gën leen a wax ni leen euh, kii cosmétique nekkul entreprise bu nga xamante ni li muy def daf koy def donc fu leer na ko teg ay produits bu ko ñëw da ngay xam ni macha allah ñu ñëw ci li nga xam ne moo di euh, promo yi nga am weex tàll nit ñi dañ koy wër fu ne nga am prix boo ko yóbbu nga wàcc ko ba zéro lu tax loolu. waaw xam nga Sénégal nag moom boo fi nekkee da ngay yor solo daaw Serigne Sall. boo fekk yàlla yaa tax moo koy xatal. Mm-hmm. te kuréel yi boo ko tegee ci benn gox rek. Hmm. am na ñoo xam seen loxo dëgg foofu. kon ñooñu boole wala ci produit bi. moo tax da ciy baax dañuy dem ba benn moment ñu boole produit bi. ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw wala xam sax ci produit bi. voilà moo tax nag gaam bi nga jot soixante dix bi ñu jaay quarante cinq waaye si vingt cinq. mooy wextaan bi waaw mooy wextaan bi. gaam bi nga xamante ni moo doon jaay trente cinq bi ñu ko jaay vingt cinq bi. Hmm. lii bi ñu doon jaay vingt cinq bi ñëpp ñu quinze li doon jaayee 15 bi yëpp nit yi ñu ko def 500. incha allah léegi loolu da nga ko def pour Sénégal yi nga xam ne bëgg nañ suñuy produit bëgg nañ dëkk bi nga xam mooy produit bio. Mm-hmm. mooy produit Thaïlande. Mm-hmm. seen loxo jot seen ginnaaw. Mm-hmm. amuñu fixé bi nga xam ne mooy suñu prix fixe. te buñ koy teg ñoom ñu mën a gis ñoom seen bopp dañ bëgg Sénégal yi ñëpp jot ci suñuy produit. dara dara dara uma dara yee dara man la suma dara dara dara. fii ba le 31 décembre ànd leen ak king cosmétique ci gaam yi nga xamante ni dafa nekk en promo gaam weextal bi ñu doon jaayee 60 000 léegi ñu ngi koy jaayee 45 000 bu dee gaam bi doon jar 35 000 léegi ñu ngi koy jaayee 25 000 bu dee diw yi nga xamante ni 25 la doon jar nag léegi 15 000 la koy jaay waaw xoolal ma diw yi léegi king cosmétique 10 000 francs la jaayee bépp bu doon jaayee 25 000 mu ngi koy jaayee léegi 15 000 francs bu dee gommage yi nga xamante ni nag 10 la ko doon jaayee léegi 5000 francs la koy jaayee ak King Cosmétique seen 31 dafay neex a neex ba romb ndax neex fekk leen ñu Pikine marché Zing ñoo ngi centre commercial Khadija deuxième étage cantine numéro 71 wala ñu ci 77 474 31 10 77 474 31 10 mbaa ngeen woon ci 76 699 99 62 76 699 99 62 ak King Cosmétique sa décembre dafay neex. yow nag yàlla dogal na ni euh, daaw. ak euh, sànq question bi nga dugal am solo. Mm-hmm. mooy résultat yi nga xamante da nga koy gis. avant de kii li ko waral mooy. man dama nekk xale ba nag ma sawar. la preuve daaw. yow mais fi mu toll nii. décembre bi jeexee kii ko suñu lan la préparé pour ay clients. waaw ok décembre bi rek incha naissance bi ñu prévoir Thiès ba tey sànq laa wax am solo mooy aussi li nga xam ne mooy ci place bi. ak léegi dañuy béy ak man damay employé. man damaa dégg damaa dégg njiitu réew mi président Macky Sall ñu koy nuyu de passage dañu ko dégg dégg président Laye Wade mooy discours bu am solo boobu il faut travailler. il faut travailler travailler merci beaucoup. Mm. Euh, ñun ci liggéey dañ lay wax parce que dañuy employé. dama jël xale yi ci ne bu ko defee liggéey. mën karaw mën a pose sédd mën a pose ombre yu mën pédicure mën seen liggéey am kattan sawar moom laa jël ci place bi may liggéey loolu. parce que domaine bu ne da nga koy bàyyi ak gis nga mm-hmm. am rek jur am. Mm-hmm. boo jëlee nit mu mu mën. kon am na ci kenn sol. bi ma jiitee place damaa xool ku ne la nga mën ma dafa mën. ma xool ki mën a pose man ko posé ma ki mën a seet man ko nettal ma. nettal ma Sénégalais yi ñu kontaan. ki mën a pose si man ko posé la ma Sénégalais yi ñu kontaan. ki mën pédicure manicure man ko defal la ma Sénégalais yi pédicure ak manicure ñu kontaan c'est-à-dire entreprise lañ yor. ñëpp a ngi fi. équipe bi mat nag mat na ko fii équipe ba fi nekk. fii boo ñëwee yow boo ñu tardé lu ñu ko tardé parce que loo mën di ko gën a. voilà décembre bi ñu ngi préparé. immigré suñu place bu nekk nekk Kër Masar. waaw kon comme ay foofu bëggoon naa faa ñëw. waaw yàlla baax na ci ci ci li muy préparé ci décembre ci la bokk. ndeysaan ñu ngi préparé suñu place bi. ñu mhm. wax ne waa Kër Masar waa ñu war nag ñu ko demandé. Mhm. parce que dañuy ñëw fii client yi dañuy ñëw fii sonn. te Kër Masar ak Pikine nag wax dëgg yàlla dafa sori. voilà mhm. boo xoolee fu ne bëgg nañ fa am place. mais Kër Masar bi moo gën a ñor. parce que client yi ñuy am yu jógee Kër Masar dañoo bari. te bu ñu nee da ngay gis nit ñi coono la ñuy teg dóoru ñëw ñu gis ni tam bitig bi fii équipe bi commencé na yokk bitig bi xam na. Hmm. pourquoi pas ñu jël place Kër Massar. yàlla def ñu am ko nag ci diggu marché bi. foo xam ne kenn du ko laajte. incha allahu rabi ñu ngi leen di jox rendez-vous xam nga. très bientôt. ngeen xaar ñu ngeen waa Kër Massar. seen euh, bitig euh, King Cosmétique dinañ leen ko ubbil. te bu leen ko ubbilee yéen a ko moom. mais nag Kër Massar xam ginnaaw. Hmm. Euh, Toiron Pël ñu ngi ci biir. Hmm. Ngaparou. waaw ñu ngi ci biir. Niakhorot ñu ngi ci biir. Lagro sama dëkk boobu tamit ñu ngi ci biir. voilà kon. te incha allah nañu Sénégalais yi xaar ci décembre bi place bi nga xamante ni moom moo nekk Kër Massar ci surprise lay bokk woon. ak bagage yu doy waar parce que décembre dañu doog a doon. waaw dañuy doog a tàmbali dañuy doog a tàmbali. xam nga nit bu nekk fin décembre fin d'année. bon mm-hmm. fin d'année bi fii dina doy waar trop fin d'année moom. Mm-hmm. képp ku ñëw kii cosmétique bi bu mu fekkee mën nga ñëw fajal nga ñëw fajal. waaw fin d'année waaw à partir de le vingt. wala mm-hmm. vingt semaine prochaine ku ñëw kii cosmétique bi génn seen bagage. jumal 6 heures du matin 7 heures doon fekk. dina mel ne daan ko dox ñàkk. man ñëw naa fi. Euh, biñ ne ginnaaw suba la tabaski. waaye jour noonu avant may egsi fii rek beneen saaw na saako da nga loxoon sama laaj euh, parce que dama la ko bëggoon laaj ñu ñëw ci lan moo tax mënuñoo décentraliser euh, ci Cosmos alhamdulilah lay wax sant yàlla ba nga amee nii mu dem Kër Masar parce que am nga xam ne ñoo fii nii sànq ñu wax ak waa ji nga naan ko man di ne la kon nit ñi ñii soxla nañ King Cosmétique mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk Thiès ñii soxla nañ King Cosmétique mu nekk Almadies ñii soxla nañ King Cosmétique mu nekk Wakaam soxla nañ mu nekk feneen ak feneen ak feneen ak feneen te comme yàlla def na ni euh, Kër Masar bientôt ñu taxawal ko li ngay ñaanal mooy yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen xam naa ne li ñu des ci waxtu bëreetul euh, kàddu bu mujj gi rek lañu daal di laajte après ñu daal di def ci. waaw waaw kàddu bu mujj gi rek ci càmm day yàlla. wax dëgg yàlla. waaye incha allah ñu naan tëj daal ma ne ko sant yàlla lool ñun suñu kàddu di njëkk càkk na lool suñu kàddu di càkk na lool ndax Sénégal yi xam nañ fi ñu jàll ak si fi ñu àgg si lu yàmbaar mooy fi ci la bokk nag bu fi fi ci la bokk nag mais dimbali suñu bopp si mooy dimbali boo xam ne yàlla nag bu la dimbalee boppam nga nekk jàmm xew yàlla dimbali yow da nga jël da ngay sa dund yëpp da nga koy mottali ko ak càkk waaw moo tax kàddu gi ci ay càq lay doon ginnaaw bi ma sant yàlla ba noppi di santaat sama sàrdi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam di sant sama jàmbaar gi. Seydina wasilina laa ma ñëwee imposé nañ kii cosmétique bu leen ñëwoon ñu détesté mais dama ñëw ne leen kii cosmétique sénégalais yi jël kii cosmétique ci seen xol di ko moo tax King Cosmétique fu mu àgg Sénégalais benn Sénégalais jug ci Sénégalais yi ci biir. Sénégalais yi ñoo ñu dégg ñoo ñu ñoo ñu jàppale ba ñu àgg fii ñu àgg. loolu mooy kàddu yu mujj mooy cant gi may cant fu Sénégalais mën a nekk rek ñu nekk ci biir réew ak ñu nekk ci biti réew. ci biir réew te nga xamante ni ndax kaata sax ci ci sotti. waaw ah, man sax ci sotti la bokk. voilà ah. fi nekk kuy jënd ñun la demal King Cosmétique mais ñooñu ba bitig bu ci nekk kanam ñoom ci lañ bokk ki nga xamante ni sa sa sa mag bi nekk dëkk bi ki nekk village bu soxlaa nga ne ko man de kii nga suma ci gàll wóolu mm-hmm. ay produit même boo jënd suñu ànd yëpp ñaata yoon ngeen jaayal am na client yoo xam mosuñoo jënd suñu produit mm-hmm. mais ñaata produit la ñuy jaayal par par par mois mm-hmm. ñaata bari na kon ñun ñëpp cant gi jéggiwule ñun ñëpp cant gi dal na leen sant tamit euh, Europe bi nga xamante ni restaurant yi kii cosmétique dañ fay waxtaan waaw Mhm. di sant. di sant tamit sama grand bu baax fa di dem ci live moo fa nekkoon. fan sa ni ñëw. ñu live xam nga. Mhm. franchement mu nekk Espagne di préparé album tamit xam nga album boobu King Cosmétique war cee dara. te loolu diaspora bi la. Mhm. parce que fa fa di jabaram moo ma boole ak moom jabaram suma moom ci lañ la. moo tax King Cosmétique européen yi ñi nekk ci Europe yi kaaw gi. jël ko def ko seen moomeel daal. loolu moom. dëgg yàlla kawe na ñoom quoi te sant naa ci ñi nekk bi de Mbacke borom ci a ko dégg liggéey bu set dafay fay tey bu demee ba borom bi yëpp jox ko bopp c'est parce que li ñuy jaay moom moo baax te ñu koy ñaan suñu doom doole ko kàttanal ko. di ñaan aussi itam bokk ngi leen topp ci Salam Vision di leen fàttali ni fii ñu nekk tey mooy King Cosmétique ñu ngi nekk. Pikine marché Zinc centre commercial Khadija deuxième étage cantine numéro 71. lépp lu nga xamante ni produit la moo xam luy leeral nit la moo xam luy dindi taas la ci nit moo xam muy ay cheveux naturels moo xam muy greffage moo xam muy ay perruque wala ci pose ongle pose cils ak yeneen yeneen lépp loo xam ne daal day taaral nit ba nit boo ko xoolee muy benni fii la ci King génn leen ci marché Zahin bi centre commercial Khadija deuxième étage cantine numéro 71 ñu fekk benn bàqee ak mboole bi ñi nga xamante ni moom la amal ñu defante ak yow ba mu baax ak kii cosmétique day def tamit jaajëf. dara dara dara dara décembre ànd leen ak king cosmétique ci gaam yi nga xamante ni dafa nekk en promo gaam weextal bi ñu doon jaayee léegi ñu ngi koy jaayee quarante cinq mille bu dee gaam bu ndaw bi ñu ngi koy jaayee vingt cinq mille bu dee diw yi nga xamante ni vingt cinq mille la doon jar nag léegi quinze mille francs la koy jaay waaw xoolal ma diw yi doon jar vingt mille léegi king cosmétique dix mille francs la koy jaayee bépp zel bu mu doon jaayee vingt cinq koy jaayee léegi quinze la koy jaayee cosmétique seen 31 dafay neex a neex ba romb ndax neex fekk leen ñu Pikine marché Zing ñoo ngi centre commercial Khadija deuxième étage cantine numéro 71 wala ci 77 474 31 10 77 474 31 10 mbaa ngeen woon ci 76 699 99 62 76 699 99 62 ak King Cosmétique sa décembre dafay neex.